waaw aleykum salaam. tey jii boo doon expliqué lu waral sa teewaay fii lu muy doon. su may. boo expliqué sa teewaay. bon dañoo ñëw ci ñaari taxawaay yëpp parce que Baba Ndiaye suñu xarit la Fatel suñu rakk la du ñu invité dañuy am uh, contentement ñëw ci seen bés bi. tey boo amoon benn seere boo xam ne moom ngay def ci Fatel wala kii ci e Baba Ndiaye lu muy doon. Baba Ndiaye nit ku baax la man moom sama gaañ la et ku yaatu la ku mën a kaf la et lu mu la bëgg wax aussi mën na la ko wax ci kaf. Fatel sama rakk la dañuy waxtaan ci lu bare bare bare bare ma xam ko leen di leen ñaanal seen sëy bi bàkkeel mooy mu mu sëy rek bañ a déglu xam ne xale la jëkkëram aussi muñal ko xam ne jabaru xale la yor moom aussi mu xam ne jëkkëram góor la et mu toog muñ quoi lépp dina baax incha allah. te yow yow maintenant Sénégal na dañuy laajte ne yaa awatuñu à ah, quand le mariage. ah yàlla xam naa bés bu paree rek incha allah léegi rek. gaay xaale yi gaay yi buuxante wala demee noonu. bu jotee rek yomb incha allah. est si yow la tege. ah est-ce si gaay aussi. gaay ñoo ngi yaakaar ne ne sur gaay yi daal su weewu mooy gaay nee na studio mooy mooy xaar. Euh, yàlla daal bés bu paree rek incha allah. kon Sidi la kon mun nañu jàpp ne Sidi lay doon. pardon. man Sénégal yi jàpp ne Sidi lay doon. Euh, yàlla na sëy bi ngaa ko blende ak hôtel barkeel lu si des nag yàlla baax na. loolu mooy no comment. kooku dégg nga dégg naa. allez merci beaucoup merci beaucoup.